boo duggee rek da ngay jàkkaarloo li ngeen xam ne selu bi war nañu ay andi ay réforme profonde par rapport ak li nga xam ne moo di architecture commissariat de police yi ba nga xam ne police de proximité bi ñuy wax dëgg-dëgg dafay nekk une réalité palpable police googee war na may di daje euh, ak askan wi à travers le maire à travers les chefs de quartier à travers les imams ngir di sottante xalaat ñooñu wóyal ko jottali ko li nga xam ne moo di askan wi beneen mbir dama jàpp ni xam nga police boppam dafa am police mooy li nga xam ne mooy la la brigade prévôtale nu war nañu mën a xalaat ba nga xam ni sax xaw ma ndax am dañuy détaché am xaw ma ndax am na wal amul waaye ñu mën a détaché ay agent de la brigade prévotale yoo xam ne dañuy siéger permanemment dans les commissariat de police ngir mën di saytu yenn dossiers yi nga xam ne agents yi daañu ko am ak ñi nga xam ne ñoo di wàlle askan wi donc yëpp bu ko andee def naa ay réforme la yoo xam ne askan wi ak police war nañ se mën a xalaat ngir mën si sottante xalaat parce que itam kuñ koy waxee nag police mooy institution bi nga xam ne moo gën a jege askan wi si li nga xam ne moo jëm si wàllu karange moonaam nit ki ak li nga xam moo di alalam waaye lépp buñ ko dëxëñee def naa ni daañu mën a dem vers des prospections yi xam ne dina am pertinence dina am objectivité ba nga xam ne lu ñuy gis si police bi dina wàññeeku bu baax te aska wi bu tegee tànkam police titaan ngeen dootu ko roofu formation agent bi tam am na si solo. Hmm. naka lay waxee kii nga xam ne mooy euh, euh, kii ñu andi te mu tooñ wala boo kii ñëw ngir boole si ndax dañ kaa tooñ mu xool ban approche la mën a wax ngir li nga xam ne mooy diggante bu gën a ratax. d'accord Papa Sane euh, gis nañ ne mbir bi bi mu xewee commissaire bu Wakhinane Nimzatt bi ñu ko relevé ci fonction gis nañ ne également génn na daal di yëkkati ay kàddu ngir seetal boppam ndax mbir mi noonu la waroon tëddee. waaw euh, frustration la waxee ah euh, Ameth Ndiaye frustration la waxee euh, xool bu jeex situation bu amee ki ngànk mbir mi la woo personne morale bi waxtaan ak moom xool situation bi daal di dénoncer regretter et puis à apprécier mais benn affaire moo am Ablaye da ko junj te mu intéressant trop Fatima xam nga moo la lan mhm. gis nga jafe-jafe bu amee day xool la ko sooke pour mën a traiter conséquence bi tey ban situation la police sénégalaise di dund di dund la police qui sécurise ñun bu ñu tëree di nelaw ñi ñuy sécuriser les gradés Mohamed Mansour gradés yi ngay wax ne buy ñëwee ñoom il gère c'est de bon régulateurs c'est vrai ay di koy kilifa la ñuy ñëwee xool situation bi calmer le jeu mais ñoom ils sont dans les conditions de pouvoir calmer le jeu les gradés sont bien traités mais ñi ne ci suuf nan la ñuy dundee quand vous avez un appartement à payer à deux cent mille francs jëm kaw yow policier bi sécuriser ñun bu ñuy nelaw yow cent cinquante mille francs ngay am sa sécurité yow sa bopp yow mi ñu war a si yow amul sécurité socialement c'est c'est mm-hmm. c'est c'est dégradant seen dund kenn xamul lu mu doon ces gens-là pour un peu jàmbaar la ñu de nit ñuy résister ba du ñu def njombe moo tax njombe da leen di yomb léegi nag man sam problème mooy yàlla moo lay baaxee nga am capacité maîtrise muñ dal pour mën a bañ a egg si fenn fii wala yenn yi xool leen lu tax nit ñi am am ragal booy dugg police parce que déjà approche bi boo nee tël ennemi nga et ça dafa am lu tax foofu nag euh, Abdoulahi bu ñu delloo cinquante soixante soixante-dix ans ci gannaaw la police sénégalaise ak sunu force de l'ordre yi ni ñu leen muulee c'est selon le colon qui était là mm. parce que colon bi dafa amoon esprit moom de supradomination donc yow boo solee tenue bi tu es son élément tooj ngay def exécuter mu rafet mu ñaaw tu exécutes mm et sens boobu bokkul ak ñoom seen police ni ñuy fonctionner ak seen ay nit donc c'est des chose à refaire dëkk bi la ñu war a tabaxaat saway <laughs> d'accord euh, mu mel ni nag dañuy tëj euh, bile xët daal di ubbi beneen xët jëm ci wàllu wér-gu-yaram euh, mu mel ni nag ñu daal di wax ci wàllu feebaru VIH sida fii nag ci Sénégal bëgg nañoo xool naka la ñuy ñoŋalee lii la di cadre juridique bi bu ko defee ñi loru ci wàllu wi mën a jot ci wàllu paj bu nu mu gën a yaatoo mu mel ni nag fii ci Sénégal tey jii acteurs yi daal di nañoo def plaidoyer bi waaye nag la ñu nemmeeku bokk na ci rek fii ci Sénégal ñi nga xamante ne ne dañoo rek loru ci wàllu wi ak tout tànk bi bi dafa faible lool ñu teewlu ci ajaratu ay Chening. yu bari def nañ ko ci ngir dakkal fi jàngoro jàngoroy sida directeur bi sàmmonteeg ak ak yelleefu doomu aadama ci ministère de la justice indi ci xayma yi. lu ëpp genn wàll bi ay jigéen lañ. ñeneen yi ay xale lañ pour à Euh, fukk 10 pour cent ñeneen ñi nag mooy ñi nga xam ne mooy yeneen couche yoo xam ne euh, personnes vivant avec des handicaps ñi nga xam ne dañuy woy laa wala wala leneen ak leneen. directrice bu CNLS di dellu si ci li des ci ay jigo ñun xam nañ ni li des ci euh, groupe population yi gën a làqu la bokk population yooyu mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy génn guddi mooy góor yi nga xam ne dañu am relation entre ñoom mooy xale yi nga xam ne dañuy jëfandikoo drogue. ñoom sax pour ñu ñëw ci service yi il faut que ñun ñu rassurer leen que bu ñu ñëwee danañ protéger seen àq ak seen yelleef. VIH Sida di lu soxal àdduna wërngal këpp CNLS lëkkaloo ak direction des droits humains ñu fas yéene boole seen i doole ngir képp ku am jàngoro yu Sida mën a faju ci biir ñu jox gëdd seenuk àq ak yelleef. jërëjëf jarato Aïcha Gningue ñu daal di àddu ci wàllu mbay mi daal di am ndaje bu am solo bi amoon fii tey ji eh, ci eh, Sénégal ak eh, ñi nga xamante ne seen xel dafa màcc ci wàllu mbay ci sous région bi yépp ñoom nag dajaloo nañ doon waxtaane ci wàllu wi ngir xool naka la ñuy fexe rek ba gën a suqaliwaat ak mbay mi fii ci Afrique sow jant bu ko defee ñu daal di xeex xiif ba tax na nag tey ji ñoom daal di nañoo wax rek ci wàllu wi ni mu gën a yaatu ñu teewlu ci ki nga xamante ne moom moo di rek directeur exécutif bu CORAF daal na ci mbir mi mu ngi tudd nag Omar euh, mu ngi tudd Yamar Mbodj. climat bi eh, léegi gis nañu dafa am ay extrême parce que nun noo ko def noo yàq forêt yi yàq océan yi yàq yëpp léegi ma nu koy wan léegi nag nanu dellu gannaaw fu ñuy mën a liggéey daal bu ñu mën a associer garab yi eh, di toppatoo bu baax suuf si bañ ko yàq ndox mi li ñu ci am ak néew nu sakkandal ko xam nun koy utiliser di ko toq toqal moo moo moo kile et puis jël euh, tos di def ci suuf si pour defaraat suuf si du engrais kese loolu yëpp nag mooy agriculture intelligente face au climat ñu daal di dem euh, Ziguinchor daal di wax nag ci fête bu roi du Souy bi ñuy woowee rek Oumabel euh, mu mel ni nag jëwriñ bi ñu dénk wàllub euh, yoon daal dina représenté njiitu réew mi Macky Sall foofee ba tax na maître Malick Sall daal dina sàkku rek ci roi bu Sibilu ngir nag mu daal di rek gën a daal di góorgóorlu ci wàllub effort yi ngir nag ñu daal di jëmmal jàmm foofee ca Casamance ñu teewlu ci maître Malick Sall. xam na effectivement que moom mu ngi liggéey jour et nuit ci paix mu ngi liggéey ci paix fii ci Casamance alhamdulilah paix am na léegi ne président de la république daf koy ñaan ne que mu profiter occasion cérémonie bi pour que julli bu doon def ñaan yóbbu doon def yokkal leen pour que effectivement paix bii ñu am mu consolider ko dañu bëgg tam ñu généraliser seen julli seen ñaan ci Sénégal yëpp ñu desandi nag foofee ca Ziguinchor si Ziguinchor maanaam Sédhiou la ñu jëm wax nag ci wàllu politique ak local yu 2022 yi ñu dëgmal mu mel ni nag euh, foofee euh, déclaration ci jëm ci wàllu candidature yi nag bëri na lool ci biir euh, Benno Bokk Yaakaar mu mel ni nag foofee ca Sédhiou ki nga xamante ne moo di secrétaire exécutif bu conseil national bu sécurité alimentaire moom itam bëgg na rek xëccoo commune boobee ak maire sortant bi di Abdoulaye Diop mu mel ni nag daal dinaa rek annoncé moom itam itam am euh, ñu dem euh, foofee euh, ca Sédhiou daal di fay ànd ak sunu ndaw lu ñu toogal foofu. Jean Pierre Senghor mi nga xamante ne. nekkuloon ci politique. nit ñi ñoo taxaw Sédhiou ne may dañu yaakaar ne yow mën nga yor mairie Sédhiou. ngeen ñaan ma ko ma nangul leen ko. yàkkamti yàqule dañu wax. nañu tabax suñu démarche. caaxaan taxul ma dugg ci affaire naxe mbay taxul ma dugg ci mbir mi. dañoo bëgg xamal Sédhiou ne Sédhiou dañ ko war a ñee loolu moom wax tax a jóg Sédhiou tamit bëri na ay kàngaam ay ndaw ñoo xamante ne suñu leen jàppalee ñu dem wante di xëcc ci suuf au lieu di yëkkati loolu moo tax may xeex mu nekkoon Jean-Pierre Senghor sunu ndaw lu ñu toogal foofee ca Sédhiou moo taataan ay kàddoom Mansour Diop ñu daal di wax ci wàllu candidature yi bëri ci biir Benno Bokk Yaakaar tey jii ban jàngat nga ciy def ni xëccoo bi bëree ci biir boobee coalition. dama déglu tey ñaari analyste politique di ay taskatu xibaar. Mhm. di ay mag dafa doy sëkk comme leçon ci ñu jàngat ko foofu la ñu fi tënku muy Bakary Domingo Mané ak Pape Diogaye Faye euh, foog bu am changement mais nan lay amee changement. mooy ki nga xam ni bureaucrate la nekk fii ci Dakar benn Abdoulaye Mbow war a dem dëkkam ndax xam ni dafa war a am changement te waruñoo jël lépp teg ko ci loxo yi politique yi mu ni dafay postuler nekk candidat pour nangu dëkk ba mhm. faw mu am charte bu fekkee ba mu bëggul woon jiite dëkk ba doon na amal dëkk ba njëriñ ñu koy gis ci bu dëkk ba xewle muy dimbali ñu néew doole yenn saa yu fakkas kenn fakkasaloo cinq cent um yenn saa yu kenn fakkasaloo mille francs bu ñu laajee cotisation mu dem ay gàmmu amee mu dem bu xëyee xëy nit cëpp pour laaj dëkk ba mun nañ ko ko nangul mais bu fekkee kenn daaw ko woon gis kenn daaw ko dégg bu xëyee xëy nit cëpp gars yi dañaan ko toppal fële ki fi nekkoon li mu bon bon moo ndax sa teraanga mus koo gis ci yow kooku bureaucrate bi dem di xëccoo ji moo tax candidat yu bëri par contre am na koo xamante ni bii dañu dem ba gis médiocrité bi am ci nit ñi maanaam nga nekk bureaucrate wala nga nekk DG mais munoo woon sax am opportunité pour amal sa askan njëriñ foog nga ni balaa ngaa tekki rek da ngaa dugg ci wàllu politique loolu doon benn médiocrité noonu la ko Bakary Domingo maanaam woowee. Mhm. Euh, woowee ak euh, am na na leneen am na beneen appellation bu mu ko jox ci wàllu wane ni maa fi nekk man may DG nii maay DG nii mhm. président man la woolu te alors que bi nga bi nga nekkagul woon DG foofu noonu kenn xamul la te depuis nga nekkee DG taxul nga tekki fa dara te ba léegi nii askan wi gëmuñu la parce que dafa mel ni déggoo sax seen làkk. Mhm. léegi nag yëpp boo ko meublé dafa am benn catégorie boppam ci wàllu candidature yu bëri yi. parti politique yi aussi ku nekk bëgg am nu mu wane ak sans compter jeu de yoyo bi nga xam ne am na ci biir coalition yi nga xam ni yu bëri balaa locales yi dañuy tas. Mhm. na ci bàyyi xel fii laa la ko waxee coalition yu bëri yi ngay dégg coow la. Mhm. balaa ñu egg ci élection locale yi dañuy tas parce que ñaara ngi fi am na ay ponkal yoo xam ni du ñu fekk Ablaye Mbow mi bokk société civile. musta jiite fenn jékki-jékki ni lay ni cëpp bokk ci biir coalition bi ñu confier ko mu jiite benn ngandab mairie wala benn ngandab commune d' arrondissement. loolu dafay détruire doole parti ak seen base ci boobu la localité fi may jeexale mooy liy tas coalition yi ma la junj sànq ci candidat yu bari yi mooy Abdoulaye mënoo nekk politique gagné localité bi yëpp am sa ay conseils municipaux maintenant ci biir coalition yi bu fekkee juróom fukki parti ñu composé coalition bi ak ay mouvement kenn ku nekk ci commune bu nekk dina la yónnee kenn yónnee la kenn yónnee la kenn des fois ñu yónnee la kenn koo xam ni mu jiitalu jiitewul sax taabalu gerte caaf maanaam amul kenn ginnaawam léegi yow maire bi nekk tête de liste kan ngay préféré ki nga doon àndal liggéey ak moom tam mu am base bu dëgër ngay préféré liggéey ak moom wala ndax dangay jël benn militant Pa Assane Seck ndax mouvement la bu bokk ci biir coalition bi moo tax ma la candidat yi bëri na mais candidat bu nekk ni nga koy interprété ci candidat yooyu sax nag moo nar a tas Fatimata coalition yu bëri balaa locale yi Abdoulaye njiitu réew mi Macky Sall moo war a euh, coalition yenn yi ci boor bi ñi nekk ci partem ci boor ba ca des euh, tey jii ndax dina yomb ngir mu arbitrer. non du yomb mu arbitrer parce que itam euh, boo sukkandikoo si élection locale 2014 yi daa gis ni amoon na ay liste parallèle yoo xam ne dañoo juddoo si coalition Benno Bokk Yaakaar donc loolu c' est inévitable et dina mën a lu bari par rapport ak ñi nga xam ne moo leen dénk jox leen poste waaye bari na si ñoo xam ne déclaré